Eh, jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ngeen a ngi seetaan seen émission Rofo seen télévision Futur Média di leen nuyu di leen ñaanal yàlla euh, di ñaan yàlla réew mi dollu fi jàmm euh, yàlla dollu jàmm ci réew mi dolli sutura ci réew mi dolli wërsëg teraanga jàmm tappe xol yëpp ci daraja rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokku téléspectateurs yi comme ni ñu ko daan defee talaata ju jot fii seen émission Rofo Euh, tey nag euh, li ñuy wax ne euh, li alaaji xaadim sàmb naan alaa dawme mhm. defe naa tey dañu alaa dawme am na lu ci alaaji Lamine Thiam doon jàmbaas sax xam naa ci kanam moom dina di wax la mu doon ndax moom xam nga maag moom ay complice lañu kon ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla tey nag sunu émission Roffo am nag invité yu bari yoo xam ne tey dañ fi ñëw ndax xam nga làmb jee toll noonu week-end bi day week boo xam ne Euh, dafa riche do commencé ko statu Njaareem ba ñëw Iba Mar Diop combat yëpp boo ci indi woon ña ko doon bëre euh, waxta waxtaan wi du doy kon ma ànd ceek le grand technicien Moustapha Guèye euh, nekk suma nijoor Euh, Serigne Modou Niang le grand promoteur mi ngi toog moom it di euh, ko xam ne euh, ci li nga xam ne tournoi banlieue bi lambi banlieue sëñ Modou Niang commencé na ko ñu demoon ci deuxième journée bi ànd ak ki nga xam ne mooy Fallou fay moom di promoteur boo xam ne tamit ñi ngi nekk ci àll bi di ci bay waaram ci suma nijoor Moustapha Ibrahima Ndiaye Saramania di manager moom it indi benn touche ci lamb ndax loolu dama koy njëkkee ndax dafa indi tournoi interbrancherie loolu nag ah beneen affaire la te euh, boulanger yooyu danañu dem wuti licence te danañu organiser tournoi boo xam ne mi ngi doon première édition au Sénégal waaw dem nag ca bayal boo xam ne bii ci kanam tuuti dina ko révélé li tax mu créer loolu ak lañ ca teg ak lañ ci teg ci prix parce que ci biir boulanger euh, boulangerie yi werante da cay bari woon ñun ñoo daq bari ñii mu dégg loolu am ci ay écho waxtaan ceeg ay kilifa gis ngeen sport bi di jàll toujours ci euh, ci télévision bi kon mbokku téléspectateurs yi ak mbër yi nga xam ne ñoo bari ci week-end bi euh, drapeau bi nga xam ne tamit euh, tuddee nañ ko Pape Mayel muy lutte traditionnelle samedi aussi samedi dañu jëmaat ci stade Demba Diop ak Mounia production Alaaji Lamine Thiam Dogo mi ngi toog tey euh, teewal fi nag Pape Mayel Diop ak sunu jigéen nga xam ne mi ngi toog ci kanam tuuti moom it daañu ko jox kaddu mu teewal fi Pape Mayel Diop. kon mbokku téléspectateurs yi dañuy del rek euh, dem euh, stade bu Njaareem dem nag dellusiwaat ci biir studio kii dama ko jàpp ma xam ne leer na kii maa ko ëpp ma si jéeg moom teg ko. ñiin ko dama ko ñiin. te mooy sa premier combat. arène waaw maa ngi waa Foundiougne waa Fatick waa Passy ñëpp. ki nga xam ne mooy Pape Ngagne bu dàngu bu tëngéej mi ngi jiital moom i tànku càmmoñam ña ngay lewaatoo ña ngay demee wet ña ngay demee wet diggante njool la nag ak ndaama ah njool ak ndaama nag. ndaama gi moom combat rapproché bi moo ko aw arrangé jàppante nañ ñaar seeni loxo waaye jàppante nañu songum kaw ca kaw ngeen nañ nañ ci ñoom ñaar ki nga xam ne mooy daama ngay jéem a dóor ci suuf ah ki nga xam pam ngañ pam ngañ am na devanture loxo nu jorom téye na waaye ki nga xam ne mooy daam ma ngay dóor ma ngay dóor dafa bëgg mu bàyyi dafa bëgg pam ngañ bàyyi waaye pam ngañ dafa bàyyi ña ngi jargandal nañ ñoom ñaar ma ngay ma ngay dóor ah na ah, dafa mel ne jël na ko rëpp na ñaari loxo yi mot ma jàpp na ma ngay dóor ma ngay dóor jël na ko Pape Ngagne ah daam ma ngay dóor ah, attention daam bu xam sa coxaan dóor yi na ah, jël na ko jël na ko daan na ko ah bii nag moom xam naa ne jël bi oh dem na top 5. oh bokk na ci jël yi gën a rafet ci ouverture saison yi Bour Gueweul kii na ma ko jàngal sama mën ma loolu laay bëre kii ma ko jàngal. ma clé bi. tool bi kii ma ko jàngal loolu kaala maaka la tudd. kaala maaka mooy kaala kaala. kii ma ko jàngal vieux course. nit ñi soo ko jógee Màkka. moo dama jox ko ko ndewenal la. ah bu xéewal gi Bécaye Mbaye attaqué na ko mbay Mbaye Bécaye Mbaye Bécaye Mbaye ak Merzo Bécaye numéro un Bécaye door na Bécaye door na ah Bécaye mi moom lu mu nar nii moom daa mel ne turandoom ah Bécaye sànn na léegi benn Merzo ah Merzo génn na géew bi ah buur géwal waaw Bécaye day xam naa ni turandoom am na jomi wax ndaa am jomi bëree nag moom <laughs> Bécaye Mbaye am na jomi wax kon turandoom na am jomi bëree ñi ngi lewaatoo Bour Gueweul a wax loolu ah jàppante na ñoom ñaar daje nañ ca kaw daje nañ ca kaw fi mu nekk nii ah Bécaye Mbaye mais kenn téyewul kenn amu ci ngemb ñoom ñaar ña jëm ca saaku ya ña nga jëm ca saaku ya attention jël amul dara amul dara amul dara amul Ah, mbër da ngay topp action bam jeex Ousmane. waaw dafa teel a bàyyi action bi da koy dóor Medzo Medzo Medzo ngi dellu ginnaaw da ngay leen ko topp mooy way korndaama waalo korndaama di way woo xam ne mooy hymne national waalo mi ni xa teq ay da kay mbay oho bañ na daf ko jargandal ah fa jarga na roog moom teq ko roog doog ay caxabal ba Bécaye daan na ko jël bu rëy da koo caxabal wéeru ko waral Bécaye Mbaye bëgg ko rek dama bëgg laa mu jujee ma ko dama tànk may mbër moo di moom jeex mooy noo tey ni nga daane sa waay technique dama mën a bëre il faut maa gis ko daan ko ñëwewul bëre loolu rafet te arrière ma jël ko moom daan daan daan ko jël bu leer ah, noo ko daane nu mu tudd dama kaa xëcc bu ñoom ko caxabal biir tëj ko mu toog lu waral lamb baan ah lamb li ma ci xam mooy daf ñuy permettre comme licenciés yi bari nañu te ñoom ñëpp mën a bëre ñu def week-end bu ñu demul Demba Diop demuñu Ibamar demuñu ci région yi ñu jël lis dix lutteurs indi leen fii boole leen fi arbitre sifflé na caatu Eumeu Sène moo ngemboo ngemb lu weex li requin bu Grand Yoff mbooloo moo ngemboo ngemb lu ñuul li ñu ngi lewaatoo tey nag tey combat yëpp euh, ndaamala ak njool waaw xam nga ba mais nag ndaama yaa ngi def affaire de Ousmane. ndaama yi ñoom ñi ngi def affaire ñi ngi lewaatoo ñoom ñaar ah. yéhé caatu Eumeu Sène laa ilaaha illallaah welalalalalal waaye lii mooy lan ñu xaar arbitre am na lu xaw de xoolal supporters yi ah xanaa tey mooy journée des top 5. 3 moo ma jàngal bëre. wax ju kële bi nu mu tudd. imposé maa ngi koy sant. te prise la. prise bi prise lan. su ma ko jàppee làmb jeex ndax dama liggéey. mais prise bi prise lan la imposé. non jos jos laa lay baalee après mu wax la ko. nga njaañ am na lu mu léemu. nga njaañ ngay jat. jaañe njaañ ngay jat. nga jaañ pare na. moo féete sunu càmmoñ. Ndiassé numéro 2 féete sunu nijoor. jaase nga njaañ. nga sànni na waaye benn kur bañ dalu ci. ah. ah eh, Ndiassé Ndiassé attaqué na ko Ndiassé attaqué na ko ah eh, Ndiassé dóor na ko dóor na ko mu daanu ah eh, est ce que egg mu daanu attention est ce que dafal na nañ xool arbitre yaa ngi gisee arbitre yaa ngi gisee Ndiassé daanu na arbitre neen dañuy sëggaat kon arbitre mooy le maître du terrain loolu télévision yi danañ ko leeral ñu ngi ñoom ñaar Ngagne Ndiaye sànni na jàppante ne ñoom ñaar ña ngay xeex oh ña xeex ña ngay lewaatoo ñoom ñaar combat bi metti na attention damay ragal kawoo am ñaari xale ñi ngi xoolante ci bët jaase moo ñëwoon ginnaaw jege na xeex nañu ñoom ñaar ca kaw léegi ah, takk na ko ngañ takk na jaase jaase génn na ah, ngañ dugal na daje na ñoom ñaar nga a ngay dóor ca suuf jàpp na ña xeex ñoom ñaar xeexu suuf ah jàppante nañu jàppante nañ ñoom ñaar ñaari mbër yëpp nekk am nga ngemb. kii dañoo bëre ma dóor ko mu daanu arbitre bi ba arbitre bi sifflé ma daw nar ko ndoom arbitre bi sifflé ñëw leen dañuy bëriwaat ñu bëriwaat man nooju waat ku mu def ko ay arbitre bi dañuy bëriwaat ñu wax arbitre sifflé mu dóor arbitre jox ko avertissement mu nekk benn avertissement.